Merci. Ismaël Diallo, vous avez la parole, suivi de Aminata Gueye. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc ngeen permettre ma tout d'abord ma nuyu suñu ñaari ministre yi teew fi tey. le ministre de la Justice garde des Sceaux euh, monsieur Ousmane Diagne ak le ministre du Travail en relation avec les institutions monsieur Yankhoba Diémé nuyu seeni collaborateur bu baax a baax a baax man dama am constat bi ma def parce que bu nit booy constaté booy def diagnostic da nga koy tàmbalee ci biti projet de loi bi ba ñu ko soumettre ba tey dara yëngatuwul c'est très calme ay forces de l'ordre génne wuñ leen lacrymogène takkul xale yi génn gisuñu kenn may leen ma rek may leen ma rek li may wax dafa am solo monsieur le tout cas gisuñu kenn daw dem ci hôtel yi di làqatu amut dara amu ci ah kon ma ne le peuple yi adhère à ce projet de loi déjà loolu rek déjà ñun waroon nañu jox gaz comme quoi que ne ah ñun en tant que les représentants du peuple kat ñun war nañu ñëw jël projet bi téye ko suñu fukki loxo ndax peuple bi gisuñu kenn ku yëngu ku contesté kooku mooy benn man damay dégg ñuy wax considération est-ce que le président de la république dafa violer loi ban loi la il a idée de l'article 63 pour que ne moom dafa bëgg ubbi session extraordinaire mais ñun on est une libre autonome kon moom véluwu laa ba pare am na courage am na respect ci institution bi bëgg na institution bi jox ko gëddëm léegi ñun ñoo war a jël suñu responsabilité mais xam nga fan la ñàkk jël suñu responsabilité et j'ai senti et j'ai constaté de l'irresponsabilité mais nañ wax ci débat d'orientation budgétaire bi on a violé manifestement la loi ici à l'hémicycle nous qui votons les lois qu'est-ce qui s'est passé ministre bi daf fi ñëw ministre de finance ñëw ba toog comme ñii ministre yi toogee président de l'Assemblée nationale woote bureau proposé à ce que ñu supprimer ñu annuler débat d'orientation budgétaire lan mooy débat d'orientation budgétaire lan mooy débat d'orientation budgétaire. waaw ah, s'il vous plaît le terminer on perd du temps hein. on a d'orientation budgétaire moo ñu doon permettre li ngeen fi jàmbat naan te lii baaxul ak amuñu tribunal foofu lañ ko waroon a waxee bu ko defee l'État ou bien le gouvernement puisse s'orienter ci préoccupation yi nga xam ne moom ngeen fi moom ngeen di mën moom ngeen am léegi nag waa léegi ñaari institutions yi lu tax ma bëgg ñu ko dinaa ñëw ci budget bi et je serai très fii nga ñu jaay sept mille trois virgule six milliards mooy budget bi te nekkul loolu da ngeen cee doxanoon l' amortissement de la dette lu indi budget moo tax ñun ñu waxoon budget bi sincère ba ñoo ko voté kon ñun on l' assumé bi ma ngi toll ci cinq mille cinq cent trente trois milliards boo demee intérêt de la dette mu ngi toll ci cinq cinq cent soixante dix huit milliards la dette mu boo ko dajalee mu nekk milliards virgule quatre milliards. virgule 4 boo xam ne dañ koy fay par an par mois te loolu dañ koy dajale ci askan bi dañ koy jëlee léegi recette bi ñëw ñu ne nag recette lii lañ soxla 4915 virgule 2 lañ soxla xam nga ñaata la ñuy dépense te dépense personnelle la de ci la def seen surfacturation yi ak yeneen ak yeneen mu ngi toll ci 5755 virgule 4 milliards léegi moo tax ñu am déficit budgétaire bu 840 cent loolu tax PS bu moom dafa mën a leb PS leb kese la woon 15000 milliards de waa léegi loolu boo defee diagnostic boobu mais ñun ñii doog a ñëw gis na dëkk bi dafa kii bi Sénégal dafa suróo le pays est en ruine le premier ministre a raison foo foo foo ko yi ngeen di wax mais président Bassirou nee na fekk fa dara waa ji tuŋaaj na lépp yóbbaale ko Maroc moo tax diagnostic yooyu moo tax vraiment ñaari institutions yi dañ ko pour rationaliser te loolu dafay coïncider ak ce qu'on mais licence de pêche yi tey jii ñu ngi réorganiser bu ngeen seet renégociation des contrats dans les secteurs stratégiques qu'est-ce que ça signifie c'est des gains économiques yoo xam ne dañ koy gagner pour dolli ko ci gafaga gi saa waay ñu ngi liggéey de ñu ngi liggéey yéen yéen a nekk fi yéen a aveugle yéen a xamuloon dara léegi maa ngi gis ngeen di accuser le ministre Balla Fofana le ministre Balla Fofana moom il parlait de décentralisation moom musul wax ne musul wax pôle territoire yi day au conseil des collectivités territoriales encore une fois allez revoir la vidéo merci ah, chers collègues je vous demande d'écouter nos collègues pour nous permettre de terminer nos travaux avant minuit je suis obligé de suspendre le chrono à chaque fois que il y a interruption merci vous avez la parole Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail en relation avec les institutions, Mesdames et Messieurs les honorables députés, je vous salue. Monsieur le Président, je vais commencer par vous. parce que dafa am koo xamante ni dafa am habitude saa yu nekkee fii di la saaga te dañ ne ku joxewul cër doo am cër mais yow président mam Diop vous faites la fierté de cette assemblée nationale vous faites la fierté des Saint-Louisiens mais vous faites aussi la fierté des Sénégalais de par votre respect votre admiration ñëpp xam nañ ni ku yaru nga ko dal nga vous êtes une personne pondérée calme et très respectueuse fii ñu la teg nag yàlla suñu borom moo la fi teg te ku nekk bëgg na fi nekk mais c'est pas donné à n'importe qui kon nag sant yàlla loolu nag daf may indi ci li ñuy wax ni dissolution de l'Assemblée nationale ñun ragaluñu loolu parce que nag ko dund di añ di reer ba yegg si fii boo fi jógee da ngay continuer dund di añ di reer di ndekki mais dafa am loo xam ne dañ koy def avec la manière y a un collègue qui a dit tout que ni argument yu ñu jox yépp dañ dañ ko basé sur l'accessoire ah non non un, pré, un, un, Premier ministre qui devrait présenter, faire sa déclaration de politique générale. Nous fur Assemblée nationale, traitez-nous avec mépris, avec indifférence. C'est de l'accessoire. Ah non, monsieur. Non, chers collègues, ce n'est pas de l'accessoire. Parce que ku la doo ko NAC, il faut que le PM nous dise que nous devons nous faire. Le président de la République, Bassirou jomay fay su nekkee ni président maam Diop moom muy président assemblée nationale dafa nekk fii jiite majorité ñuy woote jaloo ñu ni Sénégal rek préoccupation sénégalais yi rek moo ñu soxal ñun ñëpp tous les députés kon war na laa mën a saisir doo ko déggee ci réseaux sociaux c'est pas élégant c'est pas normal et c'est pas respectueux